Thank you. Bassirou Diaw gi Bass nag ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax macha allah at mu jot nii la koy defee dara du manqué dina accueillir nit ñi ci jàmm dalal leen ci jàmm seen lekk seen naan seen yëpp seen ravitaillement dara du manqué wax dëgg yàlla yal na ko fay màggal gi nag ñun ñoo ngi ci ñëw di barkeelu ci bés bi di santale boroom bés bi yàlla nañu yàlla nangul cant gi waaw ñoo ñëw naa fi maag samay bokk maa ngi gërëm di sant bés bi macha allah yëpp neex na bare na macha allah ñu ngi sant yàlla jërëjëf. ñuy def ni ci jaamu yàlla la bokk te suñu borom lépp loo xamante ne yaa ngi ko ciy jaamu dañuy nangoo suñu jaamu ndax luñ fi ñëw nii dañ fi ñëw nekk fi am fi fa yàllaaxu ñun Dakar lañ dëkk te xam nañ Dakar li fa nekk donc dañ ñëw fii pour liggéey si pour am si loo xamante ne dañ koy yóbbu te bi bi naa ko si darajay Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mii ma yaakaar ñu muy suñu yaakaar ñun ñëpp dañuy am ndam. té inshallah allah dinañ ñibbi du ci am kenn kenn kenn ku ma dara parce que ci lañ ah ah ah ah ah ah mais je vais dire. Il y a des gens qui disent partout que Dieu n'existe pas. Mais moi je sais bien qu'Allah est puissant. Regarde comment il a construit la terre. Tu verras que mon Seigneur est l'acheteur de terre. Cher Ahmadou Bamba, nous te remercions parce que vous nous pardonnez et vous nous rassemblez. Ce grand bonheur qui m'envahit au fond du cœur comme du courant. C'est aujourd'hui que ça m'est arrivé. J'ai su que Bamba est l'absolu. da ngay dem rahim gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal suñu yaay bu baax bële macha allah yaay soxna moom mi mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak sëñ Bas Diaw. nga xamne ne chaque année dañuy magal si waye jam rek ak xewal lepp doy mu jamal ñu dalal ñu na man mi nga xamne ne damay ñew ak sama njabot ñu yaatal ñu yaatal ñëpp nak lepp doy waye nak talibé non rek lay mel waaw dañuy ñaan rek bésu tu Touba bi ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim yagalé ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaanal sama taw bu góor ma dundu ba di waccel jabar ndax ku sonn ci sama njaboot la mooy seydinaa Mouhamed sallallahu alayhi wa nga xam ne dama koo bëgg di ñaan yàlla rek ziyaare ko ci sama xaalisu bopp nag waaw ndax soo soxna moom mi dem na te woon na ma te xam naa dinaa dem. maa ngi nuyu mbokki murit yëpp mbokki taalibe yëpp di jiital si nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér maa ngi gërëm bu baax nag démb bi ñu ñëwee ba léegi macha allah di gërëm soxna moom mi sëñ Bas ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. dara manké wu ñu ngi aussi respecté nañu geste barrière yépp tak masque yi gel yi yépp matalé nañ ko machallah wa machallah macha ñu ngi gëreum ñëpp. rahman rahim auzubilaahi mina seytaani rajim ñoo ngi ñaanal ñëpp di gëreum ñëpp di sant ñëpp di ñaanal señ muntaha Mbàkke yalla na fi yag ta wër bu ñu paree ñoo ngi dem nak ci señu dom soxna momi ndax soxna momi ñun sañu doom la yaayam suñu mag la waaye daal depuis démb ba nu ñëwee ba léegi dara manqué luñu di gërëm sëriñam bi sëñ bas sëñ bas moom it yàlla na fi yàgg ta wér ak mbooloom ku topp ci sëñ bas rek yàlla na fi yàgg ta wér ñuy ñaanal it soxna momi lu bari ñaanal yaayam jee di suñu mag moom it mu yàgg fi lool ta wér ñaanal soxna momi ñaanal ñëpp ñëpp ñëpp daal ñoo ngi leen di ñaanal depuis ba nu ñëwee ba léegi daal démb daal macha allah daal macha allah tuubaa daal ah jàmm rek nga fi am daal macha allah ñu ngi ñaanal ñëpp daal yàlla na yàlla lépp lu ñu fi ñaan si yàlla ci màggal bi yàlla na ko yàlla nangu te yàlla wasaare ko it ci dëkk bi yëpp Sénégal gi yëpp yàlla na ñaan gi wasaaroo ci Sénégal ci kàtt kàttanu yàlla baaxu yonent bi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 كونتي الخسيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا خيوم يا حي يا خيوم يا حي يا خيوم يا حي يا خيوم أحسن الكلام سلي وسلي وتقبل سل سلكلام من على خارج سبروفي بما يفوق صلى من مهروف لناس من الهروف خالد ربا يا من كفاه سرقرور والنبام ولي يا رحمن يا ريم يا هايو يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم صلى مسلما على مسنسي الخلا ناجاك عبدك الخديم صلى مسلما على مسنسي الخلا يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من اداك سندا رب كريم نافع قد جلى وخدرك الهزيمة قد أجلا وحتى ذنبي ويوب ما ورادلين كل كنود الجماع وحتى ذنبي ويوب ما ورادلي كل كنود الجماع يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليكم من أداك سندا يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي وكفاني جملة الرسايا بي وساخري بالمسايا فإنه جل راسك خدير وبإجابة دعاء جدير خاطبته بالشكر والصناع اسمك اني قد نفاناي يا من زار خيري ان الدلال إذ كنت لي بكرم يا سجلال يا الله يا خريب يا مجيب صل على الذي به تجيب زيدنا زي المعجزات بالسلام بالآلي وصابر مساسين سلام وكل يدارح وكل مي وكل لسايخا فوق مرامي بكم وجب جاهين حياتي سافية لك بي ما أجور دافية وجب جاهين حياتي سافية لك بي ما أجور دافية يا رحمن يا ريم ربي بما يسرون أزعل قد فجاء بجاي أفضل من lillahi xad a hambi li rabbin karimin la sharika lahu wa sadriyan yawma nuuran zaati amala a muhammadun salawatullahi fi abadin alayhi fi xisbihi kulli bihi kala a adoo ilaahi lasi مواهبه بجملة الخلق ما يختار من برأه ناجته جلا ناجته جلا ناجته جلا الذي في كل asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokki taalibe yi di nuyu jullit yàlla yi fi ñu mën a nekk ci Sénégal ak li ngi fii ci Touba ci kër Cheikh Mamadou Bachir Diaw ñi di ko wax Bass Diaw di nit ku baax di nit ku baax wax xam ne nii maanaam ñëpp mbooloo ma fi teew ci këram yëpp ñoom ñëpp da di dalal ci seen biir këram ba pare dalal leen ci xolam te loolu mooy li ëpp solo ndax dafa am benn boroom xam-xam euh, di kilifa benn boroom xam-xam mosa dem di ko gane ji li mu mu gis mbooloo mi mbooloo mi ñëw teew mu ne mbooloo mi fu jëm ñu ko teew mu ne ah aw ma fu ma leen dalal de waaye nag yéen ñëpp de xol bi xaj ngeen ci yéen ñëpp dalal naa leen ci xol bi waaye mooy Cheikh Mouhamadul Basir maanaam bi mu fàggoo li mu fàggu ci Touba ñëpp daf leen a dalal ci seen biir xol ba pare loolu leen a dalal ci kër gi te loolu mooy ëpp importance ci nit ki euh, benn bi maa man mi wax ak yéen maa ngi tudd Cheikh Mouhamadou Lamine Diouf euh, di jàngale alquran euh, yor internat ah dëgg yàlla sëñ Mountakha di sama wasila dëgg yàlla itam am yàlla dogal itam am ay sëtam yu bari yu mokkalee ci sama daara yoo xam ne moo ma leen jox yenn yi taawam sëñ Koso ak sëñ Moustapha ak sëñ Bass ak ñëpp di samay wëleel kenn ku ci nekk yëkkati ak njabootam jox ma te loolu lañ mën a wax ci suñ bopp nit ki wax ci boppam sax nag day jëfe waaye comme waa ji ne ma sëñ bi def ne ma naa présenté wu rek ñi ñi ñi jàllale loolu loolu moom dana doy sëkk ko defee sëñ Tuubaa nga xam ne nag moo ñu fi dajale nga xam ne moom moo war a lépp maanaam sëñ Tuubaa boo xoolee ak dundam su may wax ci moom nag euh, sama xool day fees ba li may yëg mag sembrom rek comme ñoo koy xam du jaam mën koo xam ndax nit ki nga xam ne boo xoolee dundam lim bind képp dafa doy danga naan xanaa kii moom gannaaw bi mu jàngee ba noppi xanaa bind rek la doon def ñu ne ñu ne gannaaw bu mu jàngee ba noppi moo jàngal diw moo jàngal diw dana xanaa kii dundam yëpp jàngale la doon def ñu ne déedéet ñu ne gannaaw bi mu jàngee ba noppi mu jàngal diw diw xanaa loolu rek doyoon na ñu ne déedéet nga ne lim bind ñu ne doyoon na ñu ne déedéet ñu ne moo defar ñoo xam ne nii bi ñuy ñëw ci Serigne Touba xamuñoon dara ci diine seen tur sax mënuñ ko woon a bind ci alxuraan ci arab mënuñ ko woon a bind wëlbatiku defar ñooñu ba ñooñu nekk ay boroomi xam-xam nekk nit ñu njub ñoo xam ne ni mbooloo lañu wëlbatiku di defar mu toftal leen mbooloo mbooloo moo xam ne nii ku leen gis mooy jëflante ñoom bëgg mel ni ñoom kooku mooy Sëñ Tuubaa wëlbati ku rax ci dolli ñu ne xanaa dundam loo rek doyoon na ci ñu ne tubaab bi jëlee na ko fi yóbbu ko lu toll ci juróom-ñaari at mu bàyyi ak njaboot ñu dal ñu dal jàng ñee ni ñu toll bëgg a toll ci dal jàng ku demee ne sama yaakaar yi tey ëllëg muy Cheikh Mouhamadul Bachir nga xam ne bi Sëriñ Tuubaa di dem booba daf ko bàttali ne bu juddoo buy góor na ngeen ko tuddee sëñ Basiru ne buy jigéen wax beneen tur Cheikh Rafaal bi nga xamante ni moom dafa déggoon Serigne Touba lool moom bi Sëñ Touba waxee loolu far yàlla dogal mu am tur tànk tur tànk bi di mu tuddee Sëñ Basiir ne Sëñ euh, mu ne Sëñ Touba lu mu wax rek dam mu njëkk wax loolu mooy am. li mu tukkee ba ñëw li ko wanal ni ko tukki bi nangu na suñ borom gërëm na ko bi ñëwee laaj ana wolu Sëñ Cheikh Mamadou Basiir ba mu ñëw mu ne ko foo toll mu ne ko la xadara de waaw mu xam ne kon tukki bi yàlla gërëm na ko. waaw kon su ko defee lii mooy màggalu Touba sëñ Touba nag màggal leen rek la ci soxla li mbooloo mi bari bari bari lépp kenn ku ci nekk na rafet njort ni bu nekkee loolu rek màggal na muy dane woon nañ ko berndeel bernde nag fuñ ko waxee xam ne da nga tuur deret ndax li ko daree ci ganaar la waxoon ba ci gëléem màggal nag jàng alxuraan nga xam ne sëñ Tuubaa dana sa borom moom loo na ma nu ne alxuraan malakanil quraana wa tamlik nu ne rek suñ borom moom loo na ko alxuraan wax na ne suñ borom may na ma alxuraan suñ borom jox na ma alxuraan maay alxuraan nu ne sëñ Tuubaa waxee na ko mooy alxuraan kon bésam bu ñëwee li ñu ci war a jiital mooy jàng alxuraan ak jàng xasida yi nga xamante nii maanaam lépp tagg rasulullahi rek mom la ci doon def kon li ku ci nek di jàng bo le ci waxtu julli juroom nga di ko joxe di jang xasida di def salatu al nabi di def ay astaghfirullah ku ko def rek ku nek yaangi magal di moy magal ay magal nak nag du ñëw lekk ba sa bir fess rek nga tok do jang alxuraan do jang xasida doo def astafurlaa doo julli ci yonent bi ah boobaa ñëw nga nag ndax suñ Tuubaa moom ku bari la la ku suñ borom gërëm la ay mbiram ku ko ñëw fekk li ko bisam bi rek lekk ci benn yi rek maanaam loola suñ borom dana ci bindal tiyaab waaye nag la nga boole ci jàng alxuraan ak loolu su ko defee ne ñu fi nekk mbokk yu baax di mbokki ay taalibe di mbokki taalibe di nit ñu oyof nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñuy bokk daal di ne fi waaye boo maanaam kenn ku ci nekk daraja joo mën a am booy dépassé que bi ko summi teg ko foofu ñun ñëpp bu ñëwee ñi ay taalibe di toog di waxtaan di jàng alquran euh, di def ay salaatul di def astaghfirullah euh, di jàng xasida euh, gannaaw bu ñu amee benn diir nag ñu toog tuuti waxtaan waaw jàmm ji fi ne daal moo wax dëgg yàlla yal ko yàlla saxal ku seen bas borom dolli ay xiwalam te yokku fanam te ñu yàgg ko fee ci barakatu Seydina Mouhamed te télé bi yal na ko yàlla jëmale kanam saa borom def ko mu nekk bokk ci télé yi nga xam ne ëllëg danañ ràññee bu bokk ci jiitu yomb na yàlla yal na ko yàlla def moom télé beeg rajo yëpp yal na def ñu nekk lu kawe ci barakatu Seydina Mouhamed parce que Seexul Xadim mi nga xamante ne nii maanaam sangam bala doon liggéeyam muy Seydina Mouhamed ba am ngërëm nii télé bi yal nañ ci doxee moom yëkkati ko ci ba faw ci wane gi muy wane Sëñ Tuubaa ak gëstu gi muy gëstu li ñu bëgg ko xamal kan mooy Sëñ Tuubaa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 kër sëñ Bass Diaw ay ati ati at fii la ñuy dalal lépp lu war ci ñun ak li ñu yaakaar yépp fii la ñu koy defale may waxtaan nag ci groupe bi nga xam ni ñoo fi ñëw ñu abrégé ko ADEDAC association des enfants des amis d'enfance bu daa xar ren nag condition yi may ko ba am nañu ay absence yu bari parce que suñu porte-parole yi ñëwuñu tel que professeur Pape Mody So euh, Diagne euh, Pape Mody Ndiaye Ousmane Gassama ñoom ñoo ñëpp waroon nañ ko fekk waaye yàlla def na li gën màggal na mu war a deme deme na ah, ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp bas nag mënuñoo nekk liñ koy gërëm mënuñu ko wees waaye dañuy ñaanal yaayam nga xam ni bii mu ci kër di soxna su baax bas lépp lu mu mënti def bu ñuy ñibbi yaayam day dajale lépp dugal ko suñuy oto amul benn oto boo xam ne bii mës nañuy jóg après màggal di ñibbi te yaayam dugalu ci dara gërëm sant bi jàppe ñu comme bas jàppe comme doomam sur ce nag vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant condition yi moo ko dajalewu parce que ñu ngi war a jàng alxuraan bi léegi xam ñu beeg yu mel noonu fi la ñuy yem rek di ñor ba yàlla may ñu ay ko dara ñu ngi leen gërëm di leen sant auzu billahi min asheytaani rajim ñoo ngi nuyu mbokk yi mbokk Sénégal mbokk àddina bi di yëgal ni Seyblou TV ñëw na ci màggal liggéey bu yaatu def na li nga xam ne nag moom la ñëpp wax sama xarit bi Maas wax ko Serigne Diouf wax ko mooy daraja màggal ci diine bi ci diine l'islam et place bi mu am particulièrement ci les Mourides su jotee kental du daal soo gisee ñu def geste barrière yi takk ay masque ñëpp ñëw sëriñ bi si boppam moo joxe ndigal loo tax ñu bare respecté nañu les gestes barrières waaye yaakaar nañu ni ñaan yi nga xam ne sëriñ bi ñaan na ko ak màggal yi bi ak li sëñ Touba aaree Touba am nañ ni yaakaar ni feebar bi dana fi nasax ba faam fii nag day dal boo xam ni dafa yaatu nit ñi fu nekk lañuy jóge ñi ñëw tànk ñi ñëw oto ñi ñëw ay moto te image yooyu yëpp gis ngeen ko xam ni par bërëb bu màgg la si nit ñi ndax Bass Diaw mi nga xam ni moo fi woote ay xaritam ay àndandom ay mbokkam ay soxnaam ak njabootam dafa fonk bis bi loolu nee na moom amul benn bis bi te nun benn bis bu dul bis bi julliti Sénégal yëpp tey kontaan nañu ci màggal bi ni mu demee ñu ngi ñaanal ñi nga xam ni si am nañu ay jafe-jafe si yoon wi Euh, walla seen bakkan wàññ wàññeeku si ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaree leen àjjana di wax ni ak mënu fi ñëwee suñ fi jógee dañuy yokk ah soxna yi nga xam ne nangu lay soxna Sëriñ Bass ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ndax bàyyi woon benn yoon bàyyi nañu nu seen néeg bàyyi nañu nu seen i douche bàyyi nañ seeni waañ bàyyi nañ la ëtt bi kër gi ni mu yaatu yaatu yëpp moomatuñ si dara nga nee ko ma donc loolu donc si gërëm ndax su ñëwee yaatuwaay boobu di ñaan nag yàlla suñu borom lu mu mën ren su déwénee mu mën bu ko raw ñun ñi fi ñëw tamit lu nu mën ren su déwénee lu mën lu ko raw ñi nga xam ni euh, ñëw nañ fii am ay soxla te bi ñuy ñëw ku si nekk am na ku la yóbbante soo demee nag ma ñaanal ñaanal nañu yëpp si barke bis bi seen ajo yi yàlla faj ko euh, euh, di ñaanal ñépp jàmm ndax si jàmm la lépp xeet feebar bi nekk si réew mi yàlla fi jóge si barke 18 fas safar bi di gërëm ki nga xam ni moo yónnee équipe bi télévision bi mu àccee fare di ko ñaanal wér di ñaanal ñëpp jàmm ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke bisu sëñ Touba bi xam ni bis bu rëy la bu taaru l'islam ci àddina bépp allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Thank you.